mu ni ausbillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim yasaluunaka yow yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa gaayi daañu la laaj si anil anfaali ca àtteb màng ma ca àtteb koom mi ñu mànge mooy koom mi ñu jëlee ci guerre bi anil ghanaim anil anfal ay anil ghanaim danan la ko laaj ci ba xam koom moomu laaj ci googu ñu lay koy laaj ci nag wax naa ko léegi lan lañ ci lan lañ ci jublu ci biir njàngat est-ce que kenn ku nekk da cee bëgg a ëppale sa morom wala kenn ku nekk danga ngaa yàkkamti jot sa cër wala dee wala lan lu gëna wér nak dañ ni comme ay sahaba lañu lolu xeyna na yitteelu leen li leen gëna a moy xam atte bi ci l'islam indi lu ci mëna xew dal dañ la laaj anil anfal ci màng ka alal jin jaas yek fas yek xar yek ba yek marsandis yek yépp yini jëlé ci ci biir xare bi tek ko ben place danan la laaj ci mbirum alal jooju waaye xul nanga leen wax su boobaa nee leen al anfaalu mbirum mbirum gi mbirum màng mi mbirum alal jooju ñu jële ci xare bi atteem lillaahi ñeel na yàlla war rasuli ak yonentam ba di yonent yàlla muhammad ñoom ñoo yore atte bi ñoo xam ku ci am ñooy xam kenn ku nekk loo ci am yàlla nag daal leen di jaaji ni lu mën a xew jàmm daal fa taqoo na ngeen ragal allah yàlla te séddoo ga wa aslihoo te na ngeen yëwanal saata baynikum ci xew seen jëmmi bopp ci xew ci seeni diggante saata baynikum na ngeen yëwanal seen i diggante waaye loolu xam nga ni boo déggee wax ji xam ni fattaqullaha wa aslihu saata baynikum du lool rek lolou dañoo wax ni li tax mu wacc waaye ba léegi yàlla mi ngi jàkkaalum ñaan ragal leen yàlla te ngeen yëwanal seeni diggante dafa mel na kon wax jooju tey la gën a tee am sax importance maanaam na ngeen soppante na ngeen bëggante na ngeen yéeneente jàmm mais na ngeen bàyyi lu safaanoog loolu na ngeen soppante bu leen bañante na ngeen bàyyi xëccoo kon bu len xaccio yoy yep duggu na ci bir lay bi wa atiyo te ngeen top allah yalla mi jara top wa rasulahu te ngeen roy yonentam ba ci ni ngeen di yalla in kuntum dem nek ngeen mu'minina digam deug deug ngam mu daal bëgg a wax nag ñi gëm dëgg-dëgg ngëm mooy ñan mu ni ñi gëm dëgg-dëgg ngëm innamal muminuuna xamal ni ñi gëm dëgg-dëgg ngëm allazina mooy gaañ a nga xam ni isa sukkira ndéem tuddeef na allahu yàlla fu ñu dégge ñu tudd yàlla ay digéem ak ay tëkkoom fu ñu ko déggee rek wajilat day daal di jàq day daal tiit xuloo bu hum seen xol ya kon boo déggee ñu wax diggéey sunu boroom te sa xol xeeme mu ko sa xol yënguwul nga dégg ñu wax tëkkuy sunu boroom sa xol bëggu daw ko sa xel yënguwul kon xam nga ni gëmagoo dëgg-dëgg ngëm waaye ñi dëgg gëm dëgg ngëm daal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee mbirum sunu boroom wajilat xuloobuhum wa isaa tuliyat jàngeef na aayaatuhu ay laayam ya moom sunu boroom bu ñu jàngee alquraanam ja alayhim ci ñoom saadathum da leen di dolli imaanan ak gën gëm ñi gëm dëgg-dëggi ngëm mooy ñi nga xam ni fu ñu déggee aayab alquran seen xol day daal di tooy dañ di dolli ngëm ñooñu ñoo gëm dëgg-dëgg ngëm ñi gëm dëgg-dëgg ngëm mooy ñi nga xam ne ba tey waaye te wàkkaloona daañu gën a sukkandiku daañuy sukkandiku ala rabbihim ci seen borom seen lépp ci seen borom lañ koy sukkandiku waaye duñ ko sukkandiku ci kenn aaya bi boo ko dee xool am na loo xam ni maqaamul xawfi la wajilat xuluubuhum kon aaya bi boo ko xoolee dana dolli sa ragal yàlla am na it aziyaadatu fil iman am na maqaamu tawakkuli allah lépp mi ngi ci biir laay bi ñi nga xam ni gëm nañu dëgg-dëgg ngëm àlla mooy gaañ a nga xam ni yuqiimuuna daañu taxawal assalaata julli ya iqaamu salaat mooy lan taxawal julli boo ko déggee mooy bu julli jotee dana fekk ñoom ñu laab laab ga ca war la julli soxla lépp bu waxtu wi dee jot dana leen fekk ñu def ko waaye duñu bàyyi ba julli gi ñu door a dem di patam patami di jàpp nit ñi di leen xaar fii xaar leen ma ñëw nangam nangam may leen moo fekk raak bu déedéet ñii taxawal julli dëggantaan daal mooy ñi nga xam ne bu julli dee ñëw dana fekk ñu laab laab ga ca war set set ga ca war lépp julli day fekk da leen di fekk mu mat kooku mooy allazina yuqimuuna salaat wa mooy gaa ñi nga xam ne ñi gëm dëgg-dëgg nga mooy ñi nga xam ni yunfiquuna dana dépassé seen alal ci topp yàlla mi ma ñu jële ko ca alal ja nga xam ni razaqnaahum ñoo leen ko wërsëgal nun yàlla kon wërsëg xam nañ ni ci yàlla rek lay jóge wërsëg ci yàlla rek lay jóge waroo ko am ba sante ko keneen dong bàyyi yàlla waxuñu nag bul sant bul sant nit waaye bul sant nitit it yàlla waxuñu ni nga sant yàlla képp rekk dong am na benn waay buy tooñ nee na nee waa ji dafa lekk ceeb ba pare ci restaurant bi bi mu paree rekk mu daan ni jóg daa ni diw daa dem yoonam waa ji mu dendal di ko xultu di ko xultu di ko xultu ca ëllëg sa ñu dajawaat fa kani woon jërëjëfa diw bàyyi ba waa ji jël palaat ba pare mu fayal boppam fayaaleel waa ji bi mu fayaalee waa ji waa ji pare bëgg a fay ñu ne ko ah kee fayal na la mun a ah, waay grand jërëjëf a yow waay jërëjëf diw waay yu tam waa ji ne ko ah loolu nga fi doon bañ démb yow ma fayaa leel rek nga may sant te loolu laa defoon démb rek ki ba doon sant démb dama koo sant noon rek waaye li ñuy bañ mooy yàlla jox la wërsëgam wi jox la wéram gii jox la manam gi jox la talam gi jox la sañam gi jox la lu baaxam lii nga jël léppam loolu ba pare jël tiraanga ji nga ko waroon a jox yépp ci sant ndax yàlla soxlawul tiraanga waaye sant gi day dellu ci yow nga dem sante ko nit nit nag ma ne su ko bañ a sant ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadisul qudsi ni yàlla nee na abdi lam yashkur nii maa lam yashkur ala man ajraytu ni'mati ala yaday aw kama yàlla ne jaam duma sant dëgg-dëgg sant ndaree bu dafa santaale ki nga xam ni xéewal gis tax mu may sant ca loxob kooku la jaare kon jërëjëf diw munta ñàkk waaye nag boo koy sant xamal li mu moom nga jox ko ko ndax maa ngi wax sama benn waay ma ne ko àddina lii fi nekk dafa am loo moom dafa am loo moom yow am loo xam ne moomoo ko mais ki nga nekk la ko moom am loo xam ni yow dong moomoo ko ki nga nekkal dong moomu ko mais yéen ñaar yéen a ko bokk am loo xam ne moomoo ko moom moomu ko loola nag ñàkkul boroom yàlla mooy kaka moom ginaaw ba mu moomee li nga moom yow dong moom lekkee moom moom dong moom li ngeen bokk yéen ñaar loolu da ngeen cee am accès mais am na loo xam ni moo ko moom te amu leen ci accès léegi nag pour nga am jàmm ci àddina jëlal li nga moom dong li nga moom yow dong jël ko ba mu jeex yaa ko moom li keneen moom pour nga am jàmm bàyyi koog moom moom ko jël ko li nga xam ni yaag sa moroom a ko bokk soo amee ful la ba jël la nga ca moom nanga gore ba bàyyil ko fa lam moom dégg li nga xam ni moomoo ko moom moomu ko bu ko moomale sa bopp bu ko moomale moom naa ñi seetaan daañu dégg li ma bëgg a wax li nga xam ne moomoo ko bu ko jël pour moom ko moom moomu ko bu ko moomale loola yàllaa ko moom amu leen ci accès léegi nag dañuy fekk li nga xam ne yàllaa ko moom kenn amu ci accès nga jël ko moom ko yow wala nga bëgg koo moomale keneen su ko defee fitna daal di am fitna day daal yàlla daal moo yor wërsëg yàlla daal aaya bi suñ ko jàngate daañ ci gis ñeenti mbir mbir mu njëkk mi mooy daañu xam ni daañu gis xirsu sahabati ala su'ali amma yahumuhum min amri diinihim suñu xoolee daañu gis xër gu saaba yi xër ci laaj loo xam ni dafa yitteel seen diine ndax bëggoon a xam seen diine tax moo tax ñu ñëw ci yonent bi di ko laaj alal ji ñu jëlee ci xare bi naka lay demee bi ci des deuxième bi mooy daañu xam ne innal ahkaama marji'uha illa allahi taala wa la laa ilaa xayrihima des bu ñu xoolee daañu xam ne atte yëpp yëpp yëpp yëpp seen delluwaay ci yàlla lay dellu ak yonent bi atte boo xam ni bañ ko xoole bukkut ak li yàlla atte ak yonentam bi atte boobe du atte bu jub ci lislaam troisièmement bi bu ñu xoolee daañu gis ihtimaamu shaaria bi islaahi zaatil bayni fa huwa waajibun shar'an li tawaqufi quwwatil ummati alayhim alayhi maanaam bi ci des daañu gis yittik aji leeral ji di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daañu gis yitte jim am ci nit ñi bëgg gum bëgg ñu yëwanoo rafetoo ci seen diggante ba tey mi ngi ci biir aaya bi bi ci gis bi ci des bu ñu xoolee daañu gis ni idnam tisaala ma amara bihi shari'u min thamaratil imaani bu ñu paree daañu gis ni ndekete yoo kat li gën a am solo gën a am yitte gën a baax di yokk meññetu gëm yàlla gis na ni lool du dara lu dul jëfandikoo li nga xam ni yàlla moo ko dégle kon yooyu yëpp am na ci aay bi kon ulaayka yooyu la gaay nga xam ne ñoo gëm dëgg-dëgg ngëm ñoom mel melokaan yii ma wax léegi hum ñoom almuminuuna ñooy way gëm ña xàqan ci dëgg te ñooñu gëm dëgg-dëgg ngëm lahum ñeel na leen darajaatun ay daraja ci biir àjjana inda rabbihim ci seen boroom lahum ñeel na leen ba tey wa ñeel na leen ngay wax ba tey maxfiratun ak njëggal wa ñeel na leen risqun wërsëg karimun wu tedd wu bare wu barkel ci biir àjjana kama axraja rabbuka min baytika maanaam yonent bi yàlla da koo wax ne ko kama axraja kom na mu génnee la yow yonent bi rabbuka sa borom min baytika ci sa réew ma di màkka bil haq ci dëgg noonu la yàlla génnee màkk ci dëgg wa inna farixan naka noonu la amee ab kuréel minal na bu bokk ci jullit ñi kuréel boo xam ne la kaari hóona way sip lañu way bañ lañu xare ndax defe ni dañ cey dee wala defe ni la leen da leen leneen da leen cey dal comme noonu nga xam ne bi ngay génnee màkk di ñëw noonu la amee ñoo xam ne bëgguñu woon loolu naka noonu la amee ñoo xam ni xare bii ñu lay tàlloo itam noonu la mel ci ñoom def naa ni comprendre nañu xanaa ñoom yu jaadi li tax nga ngay xam ni ñoom xare bi taxul mu neex leen mooy yu jaadi loona ko daañu daggenteeg yow fil xaq ci dëgg baadamaa tabayyana gannaaw ba mu leeree leer leen naññ ni xare bi mënut a ñàkk ñoom ni ñuy dàggenteeg yow ka annama yu shaqoona dafa mel na rek dañu leen a màng ilal mawti jëme leen ca deega waxum ta mbir mum ñoom yansuroo nañu jàkkaarloog deega di ko xool ku ñu màng jëmele ci dee ni ngay xoole jàkkaarloog deega nangay sibe loole am na ci sa biir gaañi ñoo xam ne nooñu lan sibe xare bi ndax defe na ni buñ demee dee ci wa tuddal ci alquran yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam is jamono ba nga xam ne yaidukum dana leen dig allahu yàlla ihda taifatayni lenn ci ñaari kuréel yi ñaari kuréel yi benn ba mooy ba Abu Sufyaan jiite woon muy kuréel jëgg ja muy kuréelu jëgg beneen bi ci des mooy bi Abu Jahlin jiite woon mooy borom ngànnaay ak borom xare yi ñëw ni Muhammad dañuy defante si ak moom ñaar yooyu nag mu ne naka kuréelu xare boobu làkkum ñeel na leen wa tawa doona ñoom ñu ngeeju nu bëgg ñaari kuréel ñu tànn ca anna xayra saati sawkati na ñoom booba la ñu tànn wayirul fekk na mun allahu yàlla an yu xeqa ci mu dëggal ci mu yellal alxaqa dëgg ga xoolal mooy jinaasul istiqaaq yéen ñi nga xam ne yéen a jàng balaaxa bi kalimaatihi ca baatam yi jiitu wa yaqtahu su ko defee dagg moom sunu borom daabiral kaafirine getu getu ga seen mooy seen gannaaw yi li yexa ngir na yey na eh, yellu alxaq dëgg wayutulu te yàqu albaatila kéefër ga wala karea a sib na looli doonte bañ na xare boobu almusrik almujrimoona way bokkaaleñ ay bii nu jëm xare bi waree taxaw yonent bi sallallahu Ali wa sallam dafa sakku ci yalla xettal ndax gis na ni limu yor ci ay mbolo boko de xol ñetti la fuk ak ñett ta ñom mat nañu junni yonent bi nak dadi talal a loxaam ah penku di ñeewante boromam di ñi wane ñeewant gu ko yàlla war a ñeewant moo ñu mu àndal di ñaan yàlla naan ko yàlla maa ngi ñaan li nga ma mësoon dig lépp nga teewalal ma ko tey yàlla li nga ma mësoon eh, eh, digee yow lépp indil ma ko tey li nga ma dig indil ma ko li ma digee yow indil ma ko yow yàlla maa ngi lay wax ni te di la wax ni mbooloo mii nga xam ni moom laa yor ni ñu ànd ak man tey jii suñ leen boomee ba ñu ya jeex fii dootul am keneen koo xam ne dana jaam dana la jaamu ci kaw suuf di ñaan sunu boroom bar làmbaay gi mu tegoon ci mbaggam di wadd abubakarin saddiq radiallahu taala anhu daa dem jël kaala googu jël làmbaay googu gàccegaat ko ci mbagg yonent bi ma ngay tàpp tàppal loxaam ca mbagg ma naan ko yow yonent bi xam nga ni ñaan gi doy na yàlla du la gàccaal yàlla du la xañ li mu digee ak yow moom la alquran di fàttali nag naan tuddal yow yonent bi jamono ba nga xam ni tastaxisuuna yéen a ngay xettali ko rabbakum seen boroom waxul kenn de rabbakum la wax su ko defee fast loolu mooy sababu aaya bi wàcc jamono ba nga xam ne yée ngi yéen a ngi xettalikoo seen borom yonent bi moo noon ko waaye li tax mu def ko jamoo dañ ni ñaar yi benn benn ci tax benn bi mooy yonent bi dafa màgg rëy rëy macha allah ba mu def ko jamoo tax mu ne ko istastaghizuna ñii ni déedéet bin ci des mooy yonent bi màgg na mais li tax mu def ko jam u mooy yonent bi xettal googu muy ñaan moom la ak mbooloo mi mu àndal moo tax mu ni tastaxisoona fàttalikul ci alxuraan jamono ba man yéen a ngi xettali ko rabbakum seen borom ca xare badar ba fastajaaba fa ca saasa rek istajaaba yàlla nangu ñaan laakum ñeel leen yàlla neen an nii man mu middukum maay aji dolli seen maay aji tëbbu leen maay aji dimbali seen bi alfin ci junni minal malaikati ci malaaka murdi fii na yoo xam ne dañuy tegaloo junni ñëw dégg nga juróomi téeméer ñëw wala junni ñëw leneen ñëw ñeneen ñëw ñeneen ñëw ba mu mat salaasata alaafin yu teg ñetti junni yu teg juróom am na foo bu ngeen demee ci Ali Imran da ngeen ko fekk mu gën malaaka yi ñëw nag ci bisu badar boobu benn nitu yàlla wax na ne wala taajab wa yowmal badri jaa'u junuudullahi min amril maini wa doonahumu amaimu wa hiya biidun wa qad nazalu min alxarbi sutooni wa qad sami'a alsahabatu xawla jibril yaa xay suumu aqdim bil mazoni nee na bul yéemu ci bisu badar boobu bisu badar boobu ci la yàlla yebale malaaka yi ñu ñëw di jàppale jullit ñi ci xeex bi malaaka yi bi ñuy ñëw bu ngeen yëree téere yi jibril ànd naa nangami malaaka am na place bu mu taxawee mikaayil ànd ak nangami malaaka am na place bu mu taxawee am na kum fa fekk loolu day guddal mu ne ñoom wàcc nañu ci bisu badar boobu bi ñuy wàcc ci ñoom malaaka yi kaala yu weex tàll ñoo nekk ci seen kaw bopp ya nee na dégg nañu saxaaba yi nee na ñoom dégg nañu jibril alayhi salaam naan yow xay suum gaawal jiitul gaawal yow fas yu ñëw xay zoom bi ñu ñëwee nag nañu doon xeexe yàllaa leen ko wax waaye yàlla daal nee na nangu na ñaan nga wàcceel leen ay malaayka yoo xam ni dañuy tegaloo kuréel par kuréel lu tax yàlla wàccee malaaka yi looloo tax ñu gañe wala ndéet mu ne wamaa jaaloo yàlla wàcceewu wamaa jaaloo wàcceewul yi allahu yàlla illaa bu lu dul bégal leen wali tatma inna ak ngir na dal xuluubukum seen xol ya bihii ca xare boobu waaye wa man nasur déet dëgg-dëgg ndimbal ilaa min indilaay lu dul ca yàlla rek lay jóge ndax inna allaha naka yàlla azizun ku not ci nguuram la hakimun ku xereñ la li lay xamal ni ndimbal li dalal na seen xel te tiitoon nañu de mooy is ja mooy jamono tuddal tuddal ci alquran is jamono ba nga ni yu xashikum muur na leen annu aasa njayaxu la amatan mbirum nekkam muy nekk kóolute ci yéen li tax ma ne jayaxu dañoo wax ni an nawmu fil qalbi an nawm fil qalbi wa sinnatu fir ra'si wa nu'aasu fil ayni dafa am lu ñuy wax nelaw am lu ñuy wax jayaxu am lu ñuy wax gëmmeentu dañ ne annaw mu moom fil qalb nelaw ci xol lay ne nelaw ci xol lay nekk nit mën nay nelaw ba pare di la xool ay bëtam te fekk mi ngi nelaw nit mën na lay xool ay bëtam fekk mi ngi nelaw ndax xol mooy nelaw moo tax téere yi ne annawmu fil qalb annuaasu fil ayni nit man ngay wax muy gëmmu bëti nga ko koy naan ko sa waay yow daa ngi nelaw de mu la noonu nelawuma de maa ngi lay dégg nga ne ko lan laa mujj a wax mu wax la li nga mujj a wax te yaa ngi gis muy gëm bëti di këlëng-këlëngi booba jayaxu mu jayaxu dafa jayaxu nelawugul ci jayaxu la tool loolu nag moo tudd annoas day nekk ci bët mais du àggagul ci xol loolu la arab yi di wax annoasu moo tax ñu ne annoasu fi la ayni ñu ni nag su boobaa su loolu dakkul day jekk ba yàgg nag nelaw daal di ñëw ca xol ba su ko defee nag mu nelaw totalement ñu ne nag assinnatu moom fi rasi nit danga nga gis euh, gëmmeentu ci bopp lay nekk mais du nekk ci bët gëmmeentu ci bopp lay nekk moo tax yàlla ne laa taxusu sinnatun wala nawm yàlla du gëmmeentu sax waxuma la ak di nelaw moo tax ma ni ngeen fàttaliku nag ci jamono bi su xare boobu jamono bi nga xam ni ngëmmeent muur na leen tàbbisi na ci yéen amanatan waaw ku tiit ndax danga nelaw ku tiit doo nelaw kon kay ñoom ni ñu ragale woon xare bi di ci xalaat yàlla indi leen seen xel dal ba ñuy jayaxu loolu amanata mbirum nekk mu nekk kóolute mu nekk xel mu dal minu gu tukkee ci yàlla fekk am na ñu ne saytaane manoon na ci ñenn ñi ñu tëdd ci man gi mooy manu nelaw am na ci saaba yi bi ñu tëddee gént nañu am ànd ak seen nawle ba am lu génn ci ñoom am na ci war ñi war a xare am na ci ñu am jana ba daal te ndox mi ma nga ca côté yéefar yi ñoom fi ñu nekk amul ndox ñu war a naan war a sangu war a sang fas war a am ndox léegi nag am na ci ñoon loolu nekkoon seenum tiit yàlla ne ba loolu nekkee seen tiit nag wayu nazil ñu wàccee aleykum ci yéen na ngeen ko fàttaliku de maan am ndox na sama yi bu jóge ci wàlli asamaan ndax ndox jógewul ci asamaan ci wàlli asamaan la jóge ndax boo yoroon avion tey di naaw muy taw danga dem ba yàgg taw bi féete la suuf taw bi ci kaw taw bi ngay nekk muy taw nga xam ne taw baa ngi ci sa suuf te asamaan saa ngi sa kaw ba tey kon ndox jógewul ci asamaan mina samaa yi jóge ci wàlli asamaan yàlla wàccee ndox moomu nag li tahirakum ngir na leen laabal ngeen laab ci sobe bi ca ndox moomee mu wàccee kaw asamaan lépp ci préparé guerre bi wayu siiba ak ngir na deme ngir na deme rëj sa seytaane jax-jaxalu seytaane an kum teggi leen ah ñun buñ sanguwul ñun bu ñu sangul nu ñuy xare ànd ak sobe ah ci gént man maa ngi gént ni sanguma ànd ak sobe moom xare ji dana doy waar di yéefari ñoom ñoo féete yoo ndox ma di ñun bu ñu maree lu ñu naan yàlla taw ba mu tooy xib wala yor bita ak ngir na takk ba mu dëgër ala xuloobikum seen xole ngeen am wóolute am muñ wayu sabbita bihil aqdaam mooy wayu sabbita taw bi wàcc na ngir yàlla na saxal al aqdaama ndëggu ya ba mu dëgër bii ca taw boobe ndax ñoom place bi ñu nekkoon ñoom julli ñu war faa geere fiin féete woon place su beeñ la su fas yi nee bëreet maanaam su ñoom bokk su nee bëreet seen tànk yi day nuur ci suuf